الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي دلسوا واتجين يسنو تيربي دي رسالة بابن أبي زيد القيرواني رحمه الله tey jii nekk le 31 jan janvier ci 2021 mooy le 17 ci jumaadal axira ci 1442 ca gàddaayu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi toll ci li ñuy tuddee baabun ci baabun fi jumalin min al faraid ñu dese woon ca tuuti rek war a dugg ci baabun fi l fitrati wal xitaan su ko defee bu dee yor yaa ngi yor mool bu xonq bi ñu ngi page cent dix-sept bu dee yaa ngi yor samaru daani bi ñu ngi ci page six cent quatre-vingt ci ligne ba ca kaw rek da ngay gis mu naan mi ngi noonu tad min tadyiihi gannaaw ba wal ja wal mi ngi noonu wal yalja ila allahi fi ma asura alayhi samaru daani ci ligne bi ci kaw ligne bu njëkk ba ca kaw wal yalja ila allahi fi ma asura alayhi waaw kon incha allah bu dee mbokk yi gis nañu ko borom téere bi day wax ne jullit bi day wal yalja ilallah nay làqu ji jëm ca yàlla fii ma asura alayhi ca la nga xam ne jafe na ci moom min qiyaadi nafsihi ci wommat bakkanam wa muhaawalati amrihi ak la nga xame ni nii mooy jéem a jubal ay mbiram muqinan annahu lmalik muy gëm ne yàlla mooy aji moom li salaahi sha'nihi ca lay yéwénal bak mbiram wa tawfiqihi mooy ka nga xam ne it moo ko mën a dëppale wa tasdiidihi suñu borom rek moo ko mën a jubal laa yufarri laa yufaariqu zalik lool du teqali ko moom ala ma fihi min xusnin ca la nekk ca moom ci njëkk aw qabixin wala lu ñaaw wala yey asu min rahmatillah du dem mukk nag ba génne yaakaaram ci yàlla jalla wa ala mbokk fii day mujjee ci jullit naka la war a nekke jullit da nga war a xeex ak sa bakkan waaye bakkan nekk ku jafe xeexal lu dul bakkan bu yàlla yërëm moo tax mu ne foo tollu de làqu ci yàlla ca la nga xam ne jafe na ci yow jafe na ci yow ci taxaw ci farate yi jafe na ci yow ci bàyyi tere yi lépp lu mën a doon del ñaan yàlla dimbali la ca ca xam ne yàlla rek moo moom sa bakkan moom dong moo ko mën a jubal moom dong moo ko mën a dëppale ngërëmam looloo tax mu ñëw ci ay ñaan yu bari yu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñuy yonent di wax allahuma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ey yàlla sama bakkan bi yàlla na nga ko jox ragal yàllam yàlla na nga ko sellal yaa gën ci ñi koy sellal yaay ka nga xam ne yaay ka koy féetewoo ndax suñu borom mu ne walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada kon julit ñaar yooyu lay boole xeex ak sa bakkan foo mën a toll waaye ànd ak ñaan yàlla foo mën a toll ngir yàlla jubal la mbiri àdduna it lépp loo xam ne jafe na ca ngalla way delloo ko sa boroom borom bi nee ne inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra amul lenn lu jafe ci yow lu dul yàlla am na ak yombalam loolu jaaxle ya feebar ya tële ya tumuranke ya lu mën a doon rek suñu borom yàlla am na ak yombalam kon lépp delloo ko ci yàlla jalla wa ala mu ne nag loolu la nga xam ne moo ca yiw masalan mbaax gi nekk ci yow ci yàlla ngay dellu ngir yàlla sàmmal la ko mi ngi noonu nga xam ne it du sa kattan kattanu yàlla la heure boo dëppoo ngërëmal yàlla yàlla nga koy sante ñaan yàlla mu sàmmal la ko mi ngi noonu heure boo yégee ne yaa ngi jàdd yoon wa it da nga war a delluwaat ci yàlla ngir yàlla jubbanti la ca it bul découragé mukk bul dem ba mukk danaa man si fini déedéet lépp loo xam ne jëm na ci njëriñu àdduna dee ko sakko foo mën a toll bul découragé mukk ne dootu baax wàllu diine ji it ngiree nga dëppoog ngërëmal yàlla bàyyi yu bon yi bul dem mukk ba jàpp ne dootu baax ah kay del sax di ñaan yàlla di dellu ci yàlla bañ a doon kuy ñikki ca la nga xam ne mooy xiiwul yàlla wala yay asu min rahmatillah mi ngi noonu su dee da ngay jël beneen bind mu ne wal fikratu fi amrillahi miftahul ibada di xalaat ci mbir yàlla day mooy caabi jaamu yàlla fasta in bi zikril mawt del dimbindikoo di fàttaliku ko dee wal fikrati fi ma baada tey xalaat la lay xaar gannaaw ba nga deeyee wa fi nicmati rabbika aleyk del xalaat ci xéewalu yàlla ci yow wa imhaalihi lak ak boyal gi nga xam ne boyal na la ko bay bay lee la yaa ngi def ay bakkaar mu ngi lay muñal wa axzihi li gayrika bi zanbi ak jàpp ga ma jàpp keneen ku dul yow ca bakkaar ba mu doon def wa fi saalifi zanbik del xalaat foo mën a toll ca la nga jiitaloon ci ay bakkaar wa aqibati amrik del xalaat foo mën a toll man sama mucc lan lay doon wa mubaadarati ma asa an yakuna qad iqtaraba min ajalik ak it nga jëkkanteeg ci li nga xam ne mën na nekk ne yow kat jege na la nga xam ne mooy sëb dig mbokk kon bunt bu màgg bi borom téere bi mi ngi koy tëje ci ne wareef la ci jullit muy nekk di xalaat ci mbiri yàlla ci kattanam ci yërmandeem ci xikmaam mu ne loolu mooy caabi jaamu yàlla amul kuy bàyyi xel yàlla xalaat ci li yàllay def ci moom di ko def ci jaww ji lu dul mu yëg ne ab jaam la bu lott ci kanamam loolu nag lan mooy dimbali jaam bi ba mu mën a tënku ci li neex yàlla mu ne mooy ngay baril fàttali ko dee ba ko dee mooy la nga xam ne bu ñëwee mooy dox sa digganteeg àdduna jeex na mooy dox sa digganteeg àdduna te doomu aadama yi li leen gën a yàqal seen digganteeg seen borom moom mooy àdduna da ngay xam ne nag dee gii bu ñëwee dañ lay jël gas ba nga ba mu xóot ñu suul la yow àdduna moom pare nga ci kon baril di fàttaliku dee bul yem ci fàttaliku dee rek del fàttaliku la nekk gannaaw dee lan moo ne gannaaw dee yaa ngi jëm barzaq ñaar moo la fay xaar dundoon nga ngërëmal yàlla mu nekk ci yow jardin ci jardin aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko muy xéewal goo xam ne en attendant ajjana di jëw da ngay nekk ci petit ajjana en attendant mu nekk jardin ajjana boo jaarul fi neex yàlla day nekk ci yow paxu sawara ñu la fay lakk en attendant en safara di ñëw loolee kon ku koy xalaat it dana la jàppale lool ba nga gën a sawar ci jaamu yàlla waaye gën a tiit ci def bàkkaar yi mun a it bokk na ci jaam bi ngay xalaat xéewal yi la yàlla defal malheureusement li ëpp ci nit ñi li ñuy xalaat natt yi leen yàlla teg waaye moo ko xéewal gi la yàlla defal tey jii nga yeewu rek jóg taxaw fudd am na milliardaire bu tëdd hôpital bu ñu ko laajoon trésor am yëpp ba mu am loolu wallahi keroog day jàpp ne xéewlu àdduna yëpp daje na ci moom yàlla may la wér yàlla bàyyi la ak sa xel mi ngi noonu am na ci ñun ñu yàlla may soxna yàlla may la doom mi ngi noonu am na ñu yàlla may fu ñuy tëdd yàlla may la lu bari par contre yàlla lu mu la xéewala rek boo xoolee gis nattu na leen ñoom amuñu ko mi ngi noonu bu dee ak wéri am nañu ko amul bu dee fu ñu fanaana am nañu ko amul xatta biir États-Unis te pays bi gën a mag ci kaw suuf kenn xamu fa ay SDF yu dul jeex kon xéewali yàlla ci yow mën loo ko peek di ko xalaat nag dana la delloo ci yàlla mu ne it bokk na ci loolu ba tey xoolal ñaata yoon nga def bàkkaar yoo xam ne bu la ci yàlla jàppe woon nooy def ñu ngi fàttali suñu mbokk bamba ñaan bi ñëw fii yàlla yàlla dolli ko yiw leen daam benn xaritu pëlëm mu ne ko ay bamba yàlla baax ay bamba su ma dee woon ci at yi ci gannaaw yaa ngi dégg ndax rek nam nekk woon moom xam ne la ma bu ci dee woon du baax tey nag yàlla dundal na ko ba tey xam ne diine mi ngi dund diine kon nit yow doomu aadama fàttalikul mën na am defan nga bis loo xam ne bu doon heure boobu la la yàlla reyoon du baax waaye yàlla bay bay lee la bàyyi la et pourtant am na koo xam ne moom fa mu doon defalu bon fa la ko yàlla rey fa mu doon defalu bon fa la ko yàlla rey mu ne del bàyyi xel bàkkaar yi nga desal gannaaw mu ngi noonu li la yàlla natto ci bàkkaar de ko bàyyi xel ndax kenn amul yaqiin ci ne yàlla baal na ko lu dul dafa taxaw ci kanamu yàlla yowmal qiyaama waaw jullit nag da ngay rafet njort ci yàlla tuub naa rafet naa njort waaye doo dogu mu ne it bokk na ci looy war a gën a ragal te borom xam-xam yu jëkk yee loolu rek la ñu ragaloon mooy lan lay mujjee mooy aqibati amruk lan ngay mujjee ndax mbokk doomu aadama li am solo muy ak mujjam ak mujjam dar si yi passé ñu ngi ci doon fàttali xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit day dana nekk ci jëf yu waa aljana ci li nit ñi gis ci biti mu dem ba dara desul lu dul dee dogalu yàlla dab ko mu wëlbati ko dem de jëf yu waa sawara yàlla tàbbal ko sawara wal iyaazu billah looloo tax ba borom xam-xam yu jëkk ya lañ gënoon a ragal mooy mujj gu ñaaw mujj gu ñaaw mbokk jullit du ne train ba da koo dër déedéet wala dafa dugg ci néeg ba néeg ba takk mu def doom déedéet mujj gu ñaaw mooy nga mujje mooy yàlla loolu mooy mujj gu ñaaw mujjeeg naafiq mujjeeg kéeféer mujjeeg kii mu ne nag ku nekk war ne xalaat ci dóor mu ne it lii mu la wax lépp gaawee ko gaawee ko ndax mën na am sa dig lu jege la te loolu it mi ngi noonu bari na ci nit ñi ñoo xam ne xam nañ li ñu nekkee baaxul xam nañ ko waaye dañ ko wutal délai man kay sun incha allah lii moom danaa tuub ah danaa mës a def nangam di jigéen ñee danaa mës a muuru non njaaloo gi kay xam naa ne baaxul danaa ko bàyyi carte gi naa ko bàyyi ah man kay xam naa ne mbokk lépp loo xamee ne nii xam nga ni ndigalu yàlla la wala tere bi yàlla la mu ne gaawee ko ndax mën na am sa dikkat doon dig boo xam ne nii dig bu jege la mbokk loolu kon moom la tëje bunt bu màgg boobu nga xam ni la ci gën a nekk mooy ak waaraate la gu ku nekk ci ñun di war a bàyyi xel fu mu mën a toll su ko defee dañuy ubbi buntu ñeen fukkeel bi ak benn ci téere bi mooy baabun fil fitra bunte ngi bu lay jàngal la nga xam ne mooy al fitra te muy ni yàlla bindi ay jaamam bëgg ñu mel ko wal xitaan ak li ñuy tudde am njong wa xalqi sha'r ak wat karaw ya wal libaasi lu jëm ci col ya wa satru aw satrul awra ak lu jëm ci sutural awra yi wa ma yettasilu bi dalik ak la nga xam ne day jokkoog moom ca loole kon la muy jëkke mu ne wa min al fitra bokk na ci dëppoo ak sunna fitra dañ ko firi sunna dañ ko firi da nga xam ne mooy melokaan bi yàlla bëgg doomu aadama yi mel ko ci wàllu wéetal ko moo tax yonent bi alei salaam ne kullu mawludin yuladu alal fitra mi ngi noonu mu ne la ca jiitu bokk na ca qassu sharib ñu wàññi suñu moustache yi wa huwa itaar wa huwa al itaar ca mooy la nga xam ne moo wër tuñ ba ca kaw wa huwa tarafu sha'r mi ngi noonu cari mooy cati karaw al mustadir ba nga xam ne dafa wër ala shafa ca la nga xam ne mooy tuñ ba nga xam ne moo moo nekk ci say tuñ laa ixfaauhu waxul nag nga wat ko wallahu aalam doonte ne yàlla gën a xam wa qazzul wa qassul azfar bokk na ca wàññi say we wa natful ibti non wa mu ngi noon wa natful janaahayni mooy ngay dindi sa karaw ya nekk ci say wet mooy karaw yi bokkutaan ya te mooy ibt ci weneen hadis wa xalqul aana ak wat la nga xam ne mooy sa naq wala ba'sa bi xilaaqi gayriha dara nekkul nag ci ñu wat leneen lu dul lii min chaaril jasad ca karaw ya nekk ca yaram ba wal xitaan bokk na ca jong li rijaali ñeel góor ña loolu moom sunna la sunna la ñu ngi noonu wal xifaadu jong lañ koy wax ba tey mooy dindil soxna sa la nga xam ne moo nekk ca seen awra ba ca day mel ne di nekk ci kaw siq mu ne li nisa loolu nag ñu defal ko jigéen ña makruma loolu teraanga la boo xam ne ñeel na leen ca mi ngi noonu mbokk kon fii day wax melukaan yoo xam ne jullit noonu la war a mel te loolu mbokk diine rek muy diine lislaam moo am loolu mooy jàngal mbooloom comportement boo xam ne nii la ñu war a melawoo seen jëmm ya nii la ñu war a soloo ci seen yére ya loolu moo tax ba jullit moom ñépp nit yi diine lañu loolu mi ngi noonu mu ne bokk na ci loolu mooy nit ki di wàññi ay mustacham mustache mooy karaw yi nekk ci kaw tuñ bi ni loolee nga di ko wàññi mu ne nag waxul ni na nga koy wat donte ne ni ixtilaaf am na ci borom xam-xam yi ci ndax moustache mën nañ ko watam duñ ko wat am na ci ñoo xam ni dafa am xadis bu ñuy sukkandikoo rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne ifu shawarib waqfu liha na ngeen def ihfa lii di moustache am na ñoo xam ne nañ ko déggee mooy wat moo demoon lu mel ni ngëru Abu Hanifa ñoom dañ naan moustache dañ koy wat ndax ci digginu arab mënees la ko déggee wat mënees la ko déggee wàññi allahuma nag bu doon lu mel ne mazhab Malik ñoom dañ ne kii wat ay moustache am moom dañ ko war a sax dóoru moustache dañ koy wàññi moo tax mu ne moom waxul ñu wat ko waaye mu teg ci wallahu aalam li tax mu teg ci wallahu aalam mooy ixtilaaf da ca am ci borom xam-xam yi loolee kon bu ñu lay wax la gën ci moustache moom mooy wàññi ko waaye bu ko wat bokk na ci loolee wàññi say we mi ngi noonu rawatina suñu mbokk jigéen ñi bàyyi seen we yi mën a bàcc loolee kenn du ko def bokk na ci loolee karaw yi poqtaan gis nga mu ne nga rocce ko arab yi seen karaw dafa woyof naar tey jii bu jëloon dañuy jël lu mel ne dóom rek di def nii rocci karaw poqtaan yépp mais loolu néegar en général mënu ko kon ñu dindi suñu karaw yi poqtaan yi bokk na ci wat sa naq mi ngi noonu mu ne yeneen karaw yi ci yaram bi yëpp it dara nekkul ci nga wat ko karaw feneen fu mu nekk loolee na doon ca tànk yi la nekkam ci biir ba la nekkam ci feneen fu mu mën a doon lépp bu la neexee nga wat ko suuf jigéen jigéen la ñuy tere moom mu wat boppam góor fu la neex mën nga wat sa bopp mais jigéen du wat boppam xatta bu ajee manque sax du wat boppam mi ngi noonu loolee mu aju ci wàllu karaw yooyee mu ne bokk na ci wal xitaan mooy li ñuy tuddee jongo mi ngi noonu loolee sunna la ci góor ñi ca sunna la boo xam ne sunna bu dëgër la boo xam ne nii rawatina képp koo xam ne da nga am doom war ko ko defal mi ngi noonu bu dee ne ñoom li ñuy wax dañ naan ki dem ba majeur moom kenn waratul gis awraam bu ko bëggee moo koy defal boppam ay xam ngeen loolu mbokk loolu neexul defal sa bopp donte ni ibrahim alayhi salaatu wassalaam moom moo ko defal boppam mooy ki jëkk a dugg néegu bu góor ci jaami yàlla yi te moo ko defal boppam sallallahu alayhi wa sallam bokk na loo xam ne bu dee axe wolof yi du ci bëri miinuñu ko amaa nag boo demoon ci alpulaar yi saraxole yi ak du bëri ci naar yi ñoom xam nañ ko mooy jongal jigéen jongal jigéen mu ne loolu teraanga la ca loolu boo demoon tey même ay gox ci Casamance jigéen boo xam ne kenn jongalewu ko moroomu jigéenam kenn du ko considéré kenn du ko considéré comme tey rek tey jii boo ñëwoon fii Dakar xale yi kuñ xam ne kii jongul duñ la considéré loolu yi kon dañuy gis ne teraanga la bu ñu defal jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax jigéen ñi rawate nañu umma atiyee ko doon def mu ne su ngeen koy def nag xam leen ni ngeen koy defee te mooy la nekk ca kaw dagg leen ko war kese bu leen ko xóotal mu ne loolu mooy gën a tedd ak gën a nekk cër ci ndaw si ak ci borom këram yëpp te bokk na it expérience boo xam ne nii gis nañu ko mooy jigéen ñooñu ñu jongal ñoom am na ku yor rajo buy wax ci jàkk ji de waaw waaw xam naa dafa fàtte xanaa am na ku am rajo buy wax de waaw su ko defee ñu xam ne est-ce que ki ko yor de nelaw walla ala kulli xaal kon mbokk loolu bu ñu seetloo dañuy gis ne jigéen ñooñu nga xam ne dañ leen a dugal jongal ñoom ñooy gën a set ñoom ñooy gën a ëpp taaru kanam allahuma lu dul nag ne lii moom gis nañ campagne bu rëy boo xam ne Occident def na ko suñu réew yi emporté na ci suñu réew yépp te léegi délit la bu grave grave grave boo xam ne tëj kaso lañ lay def heure bu ñu gisee yaa ngi jongal jigéen loolu nag mbokk dañuy gis ne erreur la suñu maam yi ñi ngi ko doon def amuñu ci benn problème su dee ne ñu ko mënta def ba cay lor jigéen ñi loolu di am même ci góor ñi xatta góor ñi am ñuy ñuy jongal ay góor lor leen su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu diine dal en tout cas def na ko muy taraanga ku ko def baax na waaye nag nekkul loo xam ne nii lu ñu forcé ne nit ki da ko war a def déedéet loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mu ngay fàttali kenn ci sëriñ si fi jaaroon suñ Muntaga Taal yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ñun boo gisee ñuy xeex pour njongal jigéen ñi ñu bañ ko fee jëlee buñ paree ci jigéen ñi ci góor ñi lañ jëm yaa ngi dégg ala kulli haal parce que ñoom dañ koy tuddee mutilation sexuelle mooy dañ naan lor lor la gu ñuy lor nit ki ci wàllu awraam ala kulli haal mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax bu ñu jëlee beneen bind tamit mu ne wa amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an tu'fal lihya yonent bi nee na nañ guddal sikkim ya bàyyi ko wa tuwaffara ñu matal ko sëkk wala tuxassa sikkim kenn du ko wàññi qaala malik malik nee na wala ba'sa bil axdi min tuuliha dara nekkul ñu jël ca guddaayam ba isa taala kasiran su dee daa gudd guddaay bu mag wa qaalahu gayru waahid min alsahaaba wax na ko keneen ku dul moom ci sahaaba ya it wa taabiin ak la nga xame ne nii moom mooy taabiin ya waaw gannaaw loolu mbokk li indi ci loo xamee ne nii mooy wàllu sikkim wax na la moustache wax la sikkim mu ne sikkim dañ koo war a guddal yonent bi alei salaam dana bàyyi leen sikkim yi afu liha bàyyi leen ko noonu matal leen sikkim yi am na feneen fi wax arqu guddal leen sikkim yi naam loolee da ngay gis ni daf daan wax wuute leen ak y ak ak yahudi ak nasaraan yi wuute leen ak majjuus yi majjuus yi dañuy bàyyi seen moustache wat seen sikkim yéen wuute leen ak ñoom looloo tax Malik mu ne ab sikkim kenn du ko wàññi xanaa lu dul guddaay ba jéggi dayoo guddaay ba jéggi dayoo te mbokk xam ngeen ne suñu borom muy bind lu ko neex maa ngi doon xool rek ci wàllu sikkim ci internet bi di xool gis ñuy wax ci fi nga xam ne nii ci Britannique amoon na concours bu ñu fa defoon ci 2011 di xool ko gën a gudd sikkim benn canadien moo ñëw moo jël pay sikkim bi deux mètres et demi la la la guddee mu ngi noonu soo demoon ci cirque yi ngay gis indi day gis koo xam ne sikkimam day day laal óomam ak yu demee noonu loolu moo tax ba ñu ni bu guddee bu mu ëpp moom dañ koy wàññi ku mel ne Abdullah ibnu Omar la nga xam ne moom la daan def ca ci gënoon a jege sunna gënoon a bëgg a yonent bi ca la bokk da daan def moom sikkimam bu guddee da koy ngëb su ngëbee sikkim bi nii dagg la su nekk ci suufu ngëb ba loolu jàpp naa ab néegar ba mënu ko ab néegar ba mënut loolu su ko defee loolee lañuy la ñuy wax ku mel ni Cheikh Nasruddin Albani rahimahullah moom danaan kenn amul droit bàyyi sa sikkim mu gën a gudd ab ñëpp la nekk ci suuf da nga koo war a dagg waaye loolu néegar yi bokkuñu ci néegar jafe na mu mën a am loolu kon mbokk nañu xam ne sikkim yi dañ ko war a bàyyi yal na yàlla yërëm suñu mbokk ba El Hadji Fadior Gueye ak sikkimam bu gudd bu rafet ba daana wax ne bu ci dara nikkul woon lu dul ni ko tubaab bi bañe rek dudut ñu war koo def yaa ngi dégg tubaab bi ni ñu bañu sikkim rek te wuuteeg wuuteeg yéeféer yi mooy yoonu aljanna ibnu taymi bi dina ci téere bu bëri mi nga noon iqtida siratul mustaqim fi muxaalafati ahlul jahim mu ne ni tubaab bi bañu sikkim rek war naa tax jullit bi guddal ab sikkimam mi ngi noonu su ko defee kon loolee la ñu war a bàyyi sikkim yi wàññi moustache yi lu dul ne sikkim ba doon loo xam ne nii dafa jéggi dayoo bu dee jigéen jigéen bi am sikkim ku mel noonu day wat sikkimam ndax loolee melokaan la boo xam ne melokaanu góor la doonte ne ne boo dee dox rawatina ci dëkk ñag yi da ngay gis jigéen yoo xam ne nii sikkim bu gudd la ñuy yor waaye ala kulli xaal mbokk loolu jaaduwut loolu jigéen bu amee sikkim daf ko war a daf ko war a wat loolu it mu ñuy jàngal ba tey ak bëri fii ay sëriñ ñu waxee ñu ne waaw ñun mazhab Malik lañ bokk ca ma nga war sikkim ba ba mel ne nen ca Malik moom nee nag sikkim bi dañ ko guddal kenn wudu ko wàññi xanaa lu dul dafa gudd ba ëpp yow nga ne yaa ngi mazhab Malik yow ko yaa ngi mazhab bànneex waaye bu doon loolu mazhab Malik kon doo def doo def loolu ngay def ca ñu bàyyi xelit alhamdulillah mboolem sunu maam yi doon ñu ñu sosoon daara yi Sénégal xamuñu ci ko doon war sikkimam seeni doom ak seeni sët ñoo ñëw indi fi loolu waaye mboole seen ñoom ñëpp amu ci kenn koo xam ne xam nañu daan war sikkimam xalaatuñ ko woon ñemewuñ ko woon sax ndax loolu mandarga la nuru nuru lu jigéen la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax waa xalaa kulli xaal bu dee ne daañ bàyyi mbokk yi am xëy na laaj yu ñuy jiital bala ñoo dem ci kii waaw bismillah naam ah waaw ki nga xam ne dafa war sikkimam ba mu seet atteem ci lislaam dañ koy tuddee faasiq la jamono bi attey lislaam di am ki war sikkimam ba mu set daaw ñu ko doyloo ci muy seede mi ngi noonu dañ ñu ko doyloo ci muy seede wares na ko it laay biir rasul sallallahu alayhi wa sallam am na délégation bu jóge woon côté Iran ñëw ci moom wat seen sikkim mu dumm yu leen nanguwul jàkkaarloog ñoom gannaaw mu laaj leen ku leen sant li ñu ah ñu de suñu bëri ñoo ñu ko sant te malheureusement et malheureusement ba tey suñu armée nationale yi da ngay gis dañuy imposer militaires yi dañ naan la ana mon quartier maître Boubacar Samb dañ naan la la barbe pousse la nuit et disparaît le matin waaw waaw sikkim moom buy génn ci guddi guddi ga lay lay lay màgg bu fajaree na dem waaw mi ngi noonu loolee mbokk ay njuumte la nekk góor militaire mën a xeex waa ji sëñ bi sikkim da koy yokk yaa ngi dégg sikkim da koy yokk soo gisee sikkim day yokk ngóor ci côté bu nekk xatta Ibnul Qayyim bi ñu ne ci lu bari xatta góor gi nga xam ne dafa am sikkim lam man ca kaw lal kii wat sikkim a mënu ko mi ngi doon ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax mi ngi noonu xatta am na benn kii boo xam ne defoon nañ ko ci reportage boo xam ne lenn ci dëkk yi fàtta naa dëkk européen yi ñuy laaj jigéen ñi jigéen góor gi wat sikkimam ak ki bàyyi ci sikkimam mais lu ëpp ci ñoom dañ ne ñoom góor gi ñu gën a préféré mooy koo xam ne am na ci am na sikkim loolu la ñuy bàyyi ci xel bu baax su ko defee suñ caam bàyyi sub sikkim du tee nga am ci disket yi de bàyyi mi ngi noonu bàyyi na xel lool waaw baax na waaw bisimilah est-ce que amul beneen laaj bisimilah naam naam naam. waaw dañ ne jigéen du wat karawu boppam góor la ñu ne lu dul sikkimam ak mustacham ci yenn mazahib yi leneen karawu yaramam yépp lu ko ci neex wat karawu yaram yi lu ko ci neex wat am na ci yoo xam ne wat ga dañ koo dégle muy naq bi ak poqotaan yi waaye yeneen karaw yépp loolu ci neex wat rawatina ci bopp beeg lépp amma jigéen nag moom dañu koy tere mu watu nel mu wat boppam dañ ko koy tere bu karawum guddee ba jéggi dayo mën na ko wàññi soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa nañ wàññi seen karaw ba mu tolloog seen keru nopp mi ngi noonu amma nag wat moom jigéen du wat boppam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam yéen ay yéen it di su ko wat ay yéen di su ko wat loolu da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa doon wax ni yàlla rëbb muy ay naamisaat ay yéen doo su ko wat lu dul karaw ya débordé ba passé yéen ba mais tant que karaw yaa ngi yem ci kaw luñ ko erkatu yéen bi nii loolu kenn du ko wat wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam mu ne mu ne ndax bokkul wala kulli xaal duñu wax ni dafa nekk alkabair waaye ala kulli xaal safaanoo la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu borom xam-xam yi waxit bakkaar bu ndaw sax te da koy yóbbu nekk kabair parce que mooy jaman fu ci waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loole kon ñu xam ne daal jurit boo xam ne nii njàngale bi ñëw na ci yow gàllawaay bàyyil wat sikkim mi ngi noonu loolu baaxul mi ngi noonu wallahu alam naam waaw anas bin malik radiallahu anhu da daan wax ni yonent bi alayhi salaam day daf ñoo waxoon ni sunu wey yi sunu karaw yi poqotaan yi suñu karaw yi naq yi bu ñu bàyyi mukk ñeen fukki fan yuñ ko yuñ ko yuñ ko dindiwul su ko defee bu ñu bàyyi mukk ñeen fukki fan yuñ ko dindiwul loolee nag yow jullit yaay xool par semaine nga koy defam par weer waaye daal fexeel ba bul toog mukk 40 jours yu tegaloo yoo xam ne daggoo ci say we watoo ci sa naq watoo ci la nga xamee ne nii moom mooy say karawu poqutaan mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam mu ne léeg-léeg da ngay gis ay yahud ak i nasaraan yoo xam ne nii dañuy bàyyi seen sikkim loolee bu dee loolee rek jarul sax doomu aadama di sol yére ndax am na yahud ak nasaraan yoo xam ne dañuy sol yére am déet su ko defee diine dañ koy def mu nekk mandarga te en général ni ko l'islam waxee dana nekk luy bari di jafe ci ñoom islam dana nañu wàññi moustache yi bàyyi sikkim yi lu bari ci yahud yooyu ngay gis nga gis ne les orthodoxes ay sikkim yu gudd la ñuy yor waaye noonu sikkim yu guddee noonu la moustache yi di guddee loole it ay li ñuy tuddee l'exception du dàq règle mi ngi noonu loolu mooy ci langue yépp la am su ko defee dañuy wax bu ñuy wax aada dañ naan la ëpp ci ñoom di def tey ji boo demee France dama la Amérique la ëpp ci ñoom lu ñuy def dañuy wat seen sikkim léegi nag mu am ci ay benn benn yuy wat sikkim loolu taxul ñuy wax ba ñuy wax naan wuute leen ak ñoom mooy seen aada la ñoom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam aleykum salaam naam waaw loolu la jàngoon ci njëlbeen mooy fi nga xamee ne nii def naan na nga dimbali ko ci yàlla wal yalja ilallahi fi ma asura alayhi lépp loo xam ne nii tëna la del ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jàppale la ci nga bàyyi ko gannaaw ba ne ngay xeex ak sa bakkan loolee la ab julit di di di def mi mel ne feebar bi nekk ci yow ku ne xam ne ne nii yaa ngi boole di faju yaa ngi boole di ñaan su ko defee it heure boo xamee ni nii yàlla nattoo na la loo xam ne ni wóor na la du ngërëmal yàlla bul denc ñaar yi def effort kéemtalal kàttan pour ba ko boole koog di ñaan yàlla dimbali la ci wallahu subhanahu wa taala aalam ala kulli xaal kon ñu jël beneen beneen bind mu ni wa yukrahu sibaahu sha'ri sib nañu ñuy nekk di cuub doon loo xam ne nii di couleur la nga xam ne mooy suñuy sikkim di ko defee ca la nga xamee ne nii mooy lu ñuul ab sikkim kenn du ko couleur loo xam ne lu ñuul la min gayri tahrim doonte ne yëgguñu ci ñu ne araamal nañ ko wala ba'sa bil xina dara nekkul ci ñu fuddan sikkim bi nag wal katam benn ñax la goo xam ne boo ko jëfee si sikkim da koy yóbbu mel ne lu gris wa naha rasulu alayhi salaam zukura an libaasil xariir yonente ba tere na góor di sol lii di soie wa taxattumi zahab wala di takk jaaro or wa an taxattumi bil xadiid ak di doon koo xame ne nii da ngay takk li nga xam ne ni moom mooy ay jaaro weñ gu ñuul wala ba'sa bil fidda dara nekkul nag ci nga takk jaaro xaalis fi xilyatil xaatim ci takkaayu ñu ngi noonu jaaro wa sayfi ak jaasiya wal mushaf wala boog alquran joo xam ne dañ ko couverture xaalis wala yujal zalika fi lijaam loolu nag kenn du ko def ca la nga xam ne mooy ay ngalaab yi ñuy ngalaabee jurga wala sarj kenn du ko def ca teg ya ñuy teg ca kaw jurga wala sikiin kenn du ko defit ca paaka ya wala fi xeyri zalik wala ci leneen lu dul loolu mi ngi noonu mbokk kon ki nga xam ne dafa dem ba sikkimam weex mu ne nañu xam ni sib nañu mu koy soppi di ko ñuuleel doonte ne yëggul ñu ci araamal ko loolee da ngay gis ni ci mazhab Malik loolu la ñuy wax soo dellu woon ci yeneen mazahib ñoom am nañ tegtal yu ñuy tegtaloo yoo xam ni dañ naan loolu day dafa doon lu xaraam kenn waru koo def am ca ñoo xam ne dañoo teqale ñu ne bu dee ne dafa nekk koo xam ne nii dafa mel ne lu nekk ci toolu jihaad wala benn ndaw boo xam ne ni kat moom yëggul ci bijaaw yàlla nattoo ko mu teel bijaaw ku mel noonu mën na koo soppi waaye mag boo xam ne moom mag la ba bijaaw ku mel noonu waru koo soppi loolu ixtilaaf la boo xam ni dafa am ci borom xam-xam yi lu bari ci ñoom léeg-léeg ñuy lim nan sahaba tel sahaba tel sahaba tel daana ko def waaye boo delloo ko mel ni Cheikh Nasruddin Albani daf naan sahaba yi lañ doon jëfandikoo mooy alkatam ca katam boobu du ñuulal karaw ga mu mel ni ñuulay naturel bal da koy jëngal mu jëm ci lu mel ni gris amma ñuulay naturel bu mel ni karaw direct directement loolu sahaba yi daaw ñu ko def wallahu aalam ala kulli xaal la ca gën a maandu mooy ñu ne ixtilaaf la ci borom xam-xam yi ba nga xamee ne yow jullit boo bëggoon soppi sa karaw nga fuddan ko mu jëm ci xonq ci chocolat ci gris ci leneen ci leneen loolee mooy la gën a mucc ayib mi ngi noonu wallahu aalam mu ne it góor du sol suwa day wane ne kon dagan na ci jigéen mu sol suwa góor du takk jaaro or loole kon dagan na ci jigéen mu takk jaaro or ca la ëpp ca la borom xam-xam yi la ñu wax bu dee ndaw ñi liir téere Cheikh Nasruddin Albani yi nag mën nañ caa gis leneen waaye daal la ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax mooy jigéen moom am na droit takk jaaro or ak lamu or ak leneen ak leneen lu dul loolu mu ne it kenn du takk jaaro weñ gu ñuul weñ lamu weñ gu ñuul waxi nappi donte ne bëri na lool ci nit ñi rawatina suñu mbokk kasase yi ay weñ gu ñuul la ñuy takk xaw ma lu ñu ci jublu da leen di aar xaw ma da leen di lu mën a doon waaye yàlla kuli xaal jigéen du mën a nit du takk la nga xam ne mooy weñ ñu ngi noonu xatta ki yonent bi alayhi salaam doon wax demal nga xool ndax jaare weñ loolu borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu gudd almuhim daal la nga xam ne moom lañ mujj saxal mooy góor du takk jaaru xaalis du takk jaaro weñ mën na takk nag subhanallah du takk jaaro or du takk jaaro weñ jaaro xaalis nag mënees na koo takk yonent bi alayhi salaam amoon na jaaro xaalis boo xam ne da cay bindoon allah muhammad rasul moom la daan tàmpe ba mu fi jógee aboubacar daan ko takk gannaaw ba omar di ko takk ba ousmane di ko takk bis na dem ci fu ñu wax bi'ru aris jaaro ba wadd fa ñu wër ko wër wër wër pendant ñetti fan kenn mënul fexe ba gisati jaaro bi waaye ala kulli xaal kon góor man ngaa takk jaaro xaalis mi ngi noonu ixtilaaf nag am na ci ñaata gramme lay doon ak kaza wa kaza mu ne it bu ñu xoolee jaasi mënees na koo jël la nga xamee ne nii mooy njàpp yooyu ñu def ko xaalis ndax jaasi dafay màndarga ci jihaad ci jihaad dañoo bëgg ki jihaad ànd ak personnalité loolu tax lislaam may loolu dana waxee téereb yàlla bi niñ ko war a màggale bu doon te ne dañoo jël couverture xaalis couverture ko téere bi it ngir màggal ko loole da ngay gis ne ba tey lislaam dana nangu dana nangu lu mel noone su ñuy jël beneen bind mu ne wa yataxattamu nisaau bizahab jigéen ñi nag am nañ droit ñoom ti takkaayoo ay jaaray or wa nuhiya an taxattumi bil xadiid doonte ne ñoom it tere nañu leen ñuy takkaayoo ay jaaro weñ gu ñuul wal ixtiyaaru mimma ruya la nga xam ne tànn nañ ko ca lañu solo fii taxattumi ca la nga xame ni mooy takk jaaro a taxattumi fil yasaar mooy jaaro yi ñu koy takk ca loxo càmmooñ li anna tanaawula shay'i bil yamin ndax la ngay jël yaa ngi koy jële sa ndeyjoor fa huwa yaxuzuhu bi yaminihi da koy jële ci ndeyjooram wa yaj'aluhu fi yasaari di ko def ca la nga xame ni nii moom mooy càmmooñam waxtu li fa fi libaasil xazzi uuti nañu ca la nga xame ni nii moom mooy xaz te mooy yére la boo xam ne dañ ko doon jaxase entre soie ak leen wa kazalika al alamu fi sawbi min al xariir naka noonu it ay taaral yoo xam ne dañ koo def ci yére bi yére bi du du soie waaye am na ay morso yuñ ko taarale ci soie loolu am nañ ca uute illa al xatt al raqiq am amma bu dee loo xam ne ay trele yu sew loolee moom kenn terewu ko ca mi ngi noonu ba ko kon day wax fii rek ci ne bu dee jigéen am na droit takk jaaro or mu ne itamit tey jii yow mi takk jaaro bu dee lañ ca tànn mooy nga takk ko sa loxo càmmooñ ndax jaaro bi say ndeyjoor nga koy jëlee di dugal sa loxo càmmooñ waaye mbokk loolu yi da ngay gis ni lu lépp lu mën a nekk la da ngay gis ay riwaay yi ñëw na ci ne yonent bi alayhi salaam jaaroom ba ci ndeyjoor la ko doon takk riwaay yi ñëw na di wañe ci càmmoñ la ko doon takk su ko defee la ca gën a jubu nit ki rek lool la li ñuy wax ci jaaro it la ñuy wax ci montre montre takk ko ci ndeyjoor ak càmmoñ benn la la ca gën a jubu nit ki rek moom mooy lay def bu la càmmoñ gën a jubu moo la gën a jubu ndeyjoor la gën a jubu moo la gën a jubu waaye amul benn privilège boo xam ne ndeyjoor am na ko ci ñu takkaayoo ko ci kaw càmmoñ bu dee da nga tegale la nga xam ne mooy texte yi wàcc ci yooyu mi ngi noonu bu dee mbir la boo xam ne dañu koy sol ndeyjoor ak càmmoñ su boobaa dañ ñaan jëkkal sol ndeyjoor lu mel ne ay dàll lu mel ne ay yére waaye montre moom benn la kon foog fi def baax na mi ngi noonu loolu mi ngi noonu ala kulli haal dañoo mën gan guñ doon nettali fële ci yëmbal mi ngi jóge woon Casamance benn góor toilette ba jekk takk montre ci ndeyjoor takk montre ci càmmooñ ndax ñàkk a xam ndeysaan ala kulli haal loolee kon yëpp a yem kon ci loolu ñuy jeexale day wax rek ci ni soie pure moom góor du ko sol doonte ni soie boobu nag mooy li ñuy tudde soie pure nga xam ni ay patron da nga ko mën a sol costume soie moom dañ lay wax xaalis bu dul jeex amma lii ñuy tudde soie loolu polystyrène rek la loolu nekkul loo xam ne lu ñu araamal la soie bi ñuy jaay ci marché yi loolu nekkul lu ñu araamal soie pure ay sax en général ñoo koy defar ay collection bu xaw a jafe la loolee moom la l'islam tere amma tere ga it mi ngi aju ci góor kon góor du takk soie du sol soie du takk or amma bu dee jigéen a may nañ ko mu sol soie may nañ ko mu takk or mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain incha allah naa bu bilal noddee ba pare du des dana des ay ñetti minutes yooyu per yi per bi bi ñuy def ci jaaro loolu wàññiwul dara loolu jullit mën na ko takk lañ lay tere daal mooy or ak weñ gu ñuul waaye bu dee jaaro xaalis yi dafa am per loolee da ngay gis ne jullit mën na ko takk wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam ah waaw ndax mën nañ waaw bu ñu koy tent wala bu ñu koy bu ñu koy wat buñ koy tent ala kulli xaal cosaan ba ci wat karaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon wax ni nañuy bokk wat lépp wala ñu bokk bàyyi lépp loolee ngir bañ mu nekk màndarga kenn lu mel noonu nit la ñuy wax ca tent ba ndax jubluwaay ba nekkul lu dul tey ji boo demoon ci àll bi da ngay gis ni dëkk boo dugg boo xoolee watinu xale yi rek xam ñii fan lañ bokk mi ngi noonu loolu tax islaam nanguwul loo xam ne ni màndarga lay doon kon karaw gi boo koy tent lépp ngay bokk tent wala nga bokk bàyyi lépp comme boo ko doon wat lépp ngay bokk wat wala nga bokk bàyyi lépp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ñaata jihaad moo am ak ban jihaad moo ci moo ci gën ala kulli xaal am na benn xadis bu ñuy wax ni yonent bi alayhi salaam dafa jóge xaswatu tabuk mu ne jóge nañ ci jihaad bu ndaw bi ñi ngi jëm ci jihaad bu mag bi saxaaba yi ne ko ah jihaad bu gën a mag bi ñu jógee mu ne mu ne waaw waaw ñu ne ko ban la mu ne mooy jihaatu nafs ala kulli xaal xadis boobu wérul li ñuy xam daal mooy jihaad dafa bëri ay forme mi ngi noon jihad dafa bëri ay forme yaakaar naa lu yàggul dara am na xutba bi fi jaaroon ñuy wax forme jihad yi jihad mooy effort bi ngay def bu dee ne diggante gi yéeféer yi jihad dañuy jihad ak ñoom ci suñu làmmi jihad ak ñoom suñu alal jihad ak ñoom ci xeex ak ñoom bu ko laajee nit ki day jihad pour sàkku xam-xam jihad xeex ak bakkanam pour tere ko lépp loo xam ne lu bon la jihad xeex ak bakkanam pour def loo ko lu baax yooyu yépp nag da ngay gis ne en général bokk na ci gën nekk priorité mooy nga xeex ak sa bakkan ki xeexul ak bakkanam mënul jihaat ak yéeféer ki xeexul ak bakkanam mënul def yu bëri waaye nag duñ ko firee lu bari ci ñi nga xam ne ay magi suufi lañ koy wax naan jihaat dëgg mooy xeex ak sa bakkan dëddu àdduna kaza kaza déedéet ñépp la ñuy boole wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah wàllu waaw ngay laaj wala kulli xaal dañu naan nit ki yow say référence ci diine jële ko ci texte yi bu ko jëlee ci nit ñi jële ko ci texte yi bu ko jëlee ci nit ñi am na ci ñenn ñoo dem bay wax naan dégg leen li may wax ci bañ a xool li may jëf donte loolu c'est très grave suñu borom mu ne lu tax ngeen di digal nit ñi lu baax fàtte seen bopp almuhim daal moo di ne ne ñoo ñee ku ca ragal boroomam subhanahu wa taala nga laaj ko ne ko waaw ndax lii ngay def war sab sikim dafa doon loo xam ne du lislaam daganan la jàpp naa du la wax waaw loolee ñu bàyyi ci xel bu baax doomu aadama bi nag yow la ngay jël ci moom ci xam-xam fexeel balam lay wax mutul ko référence yow nga topp xam-xam boobu moom bu ko jëfewul kooku seen seen mbir kooku moom dafa nekk mbiram allahuma nag boo mënoon a am jàngalekat boo xam ne ay waxam day dëppoo ki jëfam loolu mooy la gën a mucc ayib loolu mooy la gën a mucc ayib amma bu dee ne loolu yombul ka nga xam ne xam nga ne mi ngi jàngale lu baax mën ngaa topp lu baaxam ak mooy moom nga bàyyee ko ak moom wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw waaw loolu mooy sunu dars bi ñuy nar a def dimanche prochain incha allah ci ñooñu lay jëkkee moo di ne daal ak ak col moog jullee yem julli gi dafa am charte pour mu baax ak col dafa am charte pour mu baax loolu moo tax ba julli jigéeni jullit war nga xam ni da ngaa war a muur sa awra ba mu daj wóorul xat te wóorul yaraax wóor di melal loolu mooy règle bi doonte ne détails yi incha allah dimanche prochain bu ñu fi yàlla dajalee daan ci daan ci gën a leeral mbokk kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain